situation politique nationale dégg ngeen bërki démboo njaay ay manifestation daf fi am ay ñuy wax ni dañuy manifeste parce que bu ñu demul élection élection du am damay wax ni loolu yëfi xale la élection dina am ak jàmm Sénégal yëfi xale la manifester ngeen le 8 dajaloo def seen yëfi xale fecc woy reetaan kërëb kërëb ku nekk saaga sa saaga après lan la changé ça ne change rien soyez plus responsable que ça da ngeen di changé changé wul dara di ngeen manifester waat le 17 ak le 20 ak le 30 ci yem xoolal mën ngeen kon ne di manifester mais élection yi moom fa laa budd allah kulli yàlla dina am bu soobee yàlla te amul kenn ku yeewu Sénégal fii ku mën a tere. élection yi dox loolu ñeen di def nii damay wax ni ñooñu koy def ay yëfi xale la ñuy def dañuy perloo boy seen seen temps dem place de l'Obélisque ci naaj bu tàng bi di kajang kajang yi saaga jël micro wala bari après quoi dara dara rien ne se passe tous ñun nag ñun nag njaboot jàmm moo ko jig ñun dañoo yorum réew loolu responsabilité la soo yoree réew am na waxin walla defin boo xamante ni du la jig te waroo ko wax moo tax suñu wax yëpp jàmm la ak dal ndax ñun ci loolu la ñuy bëgg sukkandiku pour liggéeyal sénégalais yi ci lañ bëgg a sukkandiku pour yóbbu Sénégal fi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy jàmm jooju nag ak dal boobu ñu bëgg ci réew koo xamante ni loolu du sa yitte ci réew mi na la leer ni boo ci taxawee benn ñun daañ ci taxaw mille pour jàmm jooju am képp koo xamante ni ay wala fitna nga bëgg ci réew mi bu la ñoree benn ñun joral nañu junni pour jàmm am ci réew wax yi dina bëri attaques yi manifestation yi am na posture boo xamante ni ñun Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle wala le Sénégalais lambda tout court ne réagit pas jusqu'à présent dafa fekk ni ñun dañu yor état am na posture boo xam ne warul nekk suñu bos donc moi j'en appelle au calme et la retenue des acteurs politiques de ce pays comme ni ko président de la république defee ndax jàmm moo gën lépp waaye nag du am na ñoo xam ne booy wax ak ñoom du ñu dégg li ngay wax parce que dafay kawe ak ñoom il faut ngay wàcc seen niveau pour wax ak ñoom ñu mën a dégg parce que léeg dañu naan gaynde gu xiif du dégg jat am na ñoo xam ne ne day baax nga wàcc seen niveau wax ak ñoom ça ma fait ça ma permet de faire le petit ce lien la sur le troisième point concernant le petit imbécile de Sweet Beauté. Je l'appelle désormais ainsi parce que c'est un petit crétin. moom moom dama ne woon du ma waxate ay waxam parce que c'est une pourriture mais mënoo ko bañ a wax parce que nag wax wax la rek fii Sénégal ku fi taxaw wax ñu taxaw tontu ndax nag kenn dafay moomu kenn dama ne woon duma ma wax man géejawaay am na si ñoo xam ne fii buñ ma joxee loxo duma leen nuyu xool sax mënu leen ko parce que je les considère comme des pourritures mbalit bi nga xamante ni mën nañ ko recycler sax moo ma leen gënal kii may wax c'est une pourriture parce que boo taxawee ci Sénégal di wax yenn kàddu yi ci réew mi doon sénégalais à moins nga doon rebelle boo xamante ni tu ne boo bëggee réew mi am na loo xam ne warul génn sa gémmiñ ak lu politique fu politique àgg moo tax tëkkuwaate bi nappaate bi yooyu mën naa ñàkk waxoon naa ko fële ci Mbàkke xam nga boo fi taxawee ne man duma ma demati signé yeewu dem signé Khalifa sàll bu nekkul élection bu nekkul candidat élection du am Khalifa Sall élec candidat dina am de way bu ñu bokkul élection du am élection dina am loolu yëpp day ware ni yi ngeen di wax c'est pas opérant ça ne passe pas li ëpp solo mooy ngeen dem sur le terrain liggéey am na wax yoo xamante ni ngóor soosu wax na ko fii yéen ñëpp dégg ngeen ko à l'insurrection jóg ndax dem palais bu manifestation amatee na ngeen dem kër député yeeg waa kër Macky yu toj seen kër on a pris note on a toj kër jàmbur yi génn xeex chaque jour moo yooyu les mêmes les mêmes mots le même discours parce que lan am xam nga li lay xaar te li lay li lay xaar bëggoo mu fekk la fi donc tous les moyens sont bons pour remédier loolu bañ a am mooy affaire u tribunal tribunal da nga cay dem. tribunal bi bu amulee senegal nañu génn ñun ñëpp jël suñuy saak dem Gambie xam ni nekkatuñ ci état wala boog violé ñëpp képp koo xam ne mës nañ la jiñ viol wala sàcc wala lu mu doon nañ la bàyyi nga génn dem dem sa yoon ndax nag léeg-léeg des fois yëf yi day bëgg nekk ku ma ndey am ndey ak ku ma amul ndey ndax baara dolli bi wax waxam ji. ku ko jàpp war ngaa mën a jàpp kee ku taxaw ne Macky sàll wax wax yu ñàkk teggin ku jàpp Bara yi war ngaa mën a jàpp ka ca des donc li may wax ci point boobu mooy li muy wax yëpp dégg nañ ko on a bien pris note moom bu génnee ci affaire u Adji ba pare man am na loo xamante ni du ma ci xaar ma sàmm du ma ci xaar ma dem sama xeexu bopp la ndax Sénégal laa dëkk damaa bëgg réew mi réew mi daa investir ci man te du ma xool nit du ko yàq. yow koo xam ne ka jur sa baay ka jur baayam Macky Sall ko gën nga ne yaa ngi koy saaga yow nga xam ne defoo dara ci Sénégal bu ñu waxee nga ne da jub. balaa ngay jub day fekk ñu jox la ay responsable da nga gérer yow sa jub kenn mënu ko xam gérer woo administration sori woo ci sa métier inspecteur impôt mokkul mësuloo defal dara Sénégal en tant que fonctionnaire tu n'as rien fait tu viens ici de à Guédiawaye tu parles d'administrateur civil de celui la il a dernier ou troisième ou premier c'est ça importe peu li am solo mooy que tu entres dans l'école tu en sortes comme un haut fonctionnaire tu travailles pour ton pays et que chacun puisse en attester. man de bu ma dee administrateur civil bokk ci ndaare enan yi man mën naa wax ni man liggéeyal naa Sénégal liggéeyal naa Sénégal nekk naa nekk naa administrateur banque BOAD nekk naa administrateur BIDC nekk naa administrateur SOGEM nekk naa administrateur SOGET nekk naa vice gouverneur banque mondiale vice gouverneur FMI nekk naa nekk naa ordonnateur délégué man am na lu ma def Sénégal man dem naa négocier financement déglu leen ma déglu leen ma grand nekkuñ ci meeting da ngeen di déglu s'il vous plaît ngeen baal ma lu mu dee dee dee su ma dox ci mbedd bi man damay gis li ma defal Sénégal Ila Touba man la Macky Sall président de la République santoon ma dem négocier ko. ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen booy yow booy sànni xeer Macky di waree da ngay wax ak say borom Macky Sall du som borom Macky Sall dama ne la yow ngóor soosu borom suy góote ka jur sa baay ka jur baayam Macky Sall am na lu ma la waxoon am na lu ma la waxoon ci Mbàkke loolu duma si ñëwaat parce que loolu wax la duma ko baamtuwaat. waaye li may wax encore une fois may remercier suñu alliés yëpp ku mel ni monsieur le maire Mbacké Sylla Racine Ba Modou Faye j'espère que duma fàtte kenn nga xamante ni ñoom dañoo yoroon ay liste ah waaw Kiné Fall ak ñëpp madame le madame Amadou Fall ñëpp surtout ñi nga xamante ni dañoo yoroon ay liste feneen ñëw renforcer ñu bokkoon gëm sa bopp ñi yoroon seen liste ku mel ni Racine ku mel ni ku mel ni Mbacke Sylla ku mel ni Mamadou Faye ku ne mel ni Modou Ngom ñoom ñëpp ils ont pris conscience de la nécessité de venir renforcer la paix et la cohésion sociale dans ce pays parce que jàmm fi mu ne nii Sénégal ku koy wut ñi yàlla dénk Sénégal pour ñu defar ko ñooñu ngay àndal et ça vous l'avez compris c'est le lieu de vous en remercier et de vous féliciter donc ci gàttal loolu laa amoon lu may wax di wax ni encore une fois may ma koy répéter sama premier point bi mooy sama waa kër bu ñu affaire élection locale nañ ko fàtte loolu jeex na loolu président de la république nekkatul foofu man nekkatuma foofu ak lu mën a xew bu kenn nekk ci yooyu li fi nekk mooy fexe ba liste bi nga xamante ni Néné ak madame la ministre Néné ak ak Beydi ñoo ko jiite monsieur le maire war a Gueye ne ci sunu rakk ji Fatimata si nekk ci liste national bi ñu fexe nu ñu gañee loolu moo ñu gën ñor parce qu'il y voit il y de la stabilité il y va de la stabilité du Sénégal ñii nga xamante ni mbedd mi rek la ñu yaakaar pour yëngal dëkk bi bés bu ñu amee nga dugal biir assemblée nationale bâtiment bi dinañ toj donc loolu laay wax encore une fois képp ku ànd ak man fii ci Géejawaay sama yitte bu dee sama yitte mooy sa yitte bu dee sama ndam mooy sa ndam bu dee li ma bëgg nga bëgg na fexe bennoo Bokk Yaakaar gañe fii ci Guédiawaye